asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balo ak di ñaan suñu suñu boroom subhanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan mu yàggal fi suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadul Muntaqa te yokk ko wér ak jaboot jabootu Sëriñ tubaa ak mboolem taalibe yi ak mboolem jullit yi ñu dellu waat rek e, ngir fàttalente lu jëm ci suñu diine tey nag ñu bëgg a ñëw ci lenn loo xam ne dafa jëm ci li ëpp solo ci yi nga xam ne diine yépp dañoo ñëw ngir sàmm ko ñu koy wax ad daruriyaat alxamsa muy juróomi yëf yoo xam ne mën nañ ne diine ju fi mas a ñëw yaa ngi koy sàmm di ko aar lislaam it ba ñëwee di ko sàmm di ko aar juróom yooyee nag mooy addiin muy diine ak bakkan ak alal ak der walla aw askan ak xel day juróom yoo xam ne ci la dunduk doomu aadama yi taxaw saabu ci benn sooxee rekk ci yooyu dundinu askan wi yépp dana sooxe moo tax diine yépp tëral ay yoon ngir sàmm ko ngir aar ko juróom yooyu nag dañ ciy jël ñaar rek tey fàttali fàttalente ci te mooy xifzu an nafsi wa xifzul maali mooy sàmm bakkan yi ak sàmmu alal yi ñaar yooyu day ñaar yoo xam ne askan wu nekk bu ca dara sooxee ci ñaar yooyu rekk duñu nekk ci jàmm buñu ñu sàmmut ñaar yooyu ñoŋal ko duñu nekk ci jàmm lislaam dafa yittewoo lool dal am jàmm am nit ñi nekk ci kóolute nekk ci sécurité te saa bu ñu demee ba nga xam ne bakkan yi ñoŋalatuñ ko alal yi ñoŋalatuñ ko bu boobaa dal googu ak sécurité boobu doo dootu mën a am te saa bu ñu demee ba sécurité boobu amul dal amul nit ñi nekkuñu ci kóolute ci seeni bakkan ak seeni alal bu boobaa li tax suñu boroom wàcce doomu aadama ci kaw suuf amal ko day jafe te mooy ñu am xel mu dal ci jaamu yàlla am xel mu dal ci liggéey ndax ak dal ak jàmm ak kóolute dafa doon xéewal yi gën a màgg ci xéewal yi yàlla di xéewali doomu aadama suñu boroom subhaanahu wa taala ci suurat Quraysh mu ngi tudd ñaar yi nga xam ne bokk na ci yi ñu yàlla xéewale yàlla xéewale woon ko waa quraysh muy falyabudu rabba hada al beyt allazi atamahum min juin wa amanahum min xawf yàlla mi nga xam ne moo leen fegal ab xiif waaye moo leen defal ñu am kóolute dàqal leen loo xam ne dañ koy ragal kon sécurité boobu nga xam ne ci xéewal yi tax ñu war a sant yàlla la bokk kon lu mat a sàmm la lu mat a aar la moo tax sëriñ bi dëkkam bii bi mu koy sanc tey ñaan ci Matlabul ni lépp loo xam ne lu nit aajewoo la ngir dund dund gu teey dund gu dal ba mën a jaamu yàlla ba mën a texe tey mën a texe ëllëg ñaan na ko ci buñ demee ma nga cay ñaan kóolute googu ma nga cay ñaan sécurité boobu ma ngay wax ne wajaalhu bi arda rizqin wa amaan yow yàlla yàlla na ko def muy suufus wërsëg waaye muy suufus kolute ak sécurité wa rahmatin wa saatin kulla awaan mu nekk suuf soo xam ne suufus yërmande la suufus yaatu la suufus yaatu la waaye ci waxtu wu nekk muy ñaan yàlla xurum ji nga xam ne mooy xurumam mooy lépp loo xam ne lu mat a sàmm la suñu borom sàmmal ko ko def ko mu ñoŋ am sécurité wajal xarimana xariman amina wa kun bi xifzihi kafilan domina kon loolu day wane rek ne ak dund ngir mu teey ngir mu sell ngir mu nit ñi nekk ci dal faw ñu am ak kóolute ci seen bopp am kóolu ci ci seeni am am moo tax jalgati ci bakkani doomu aadama yi ak jalgat yi seeni alal nekk loo xam ne lu diis la lu rëy la loo xam ne yàlla li mu ci teg ci ay daan li mu ci teg ci ay tëkkoo lu baree baree baree bari la bakkanub doomu aadama diis gim diis tax na nit ki ci boppam amul sañ-sañ sax ci jeexal ak dundam moom ci boppam yàlla dafa araamal ci moom mu faat bakkanam mooy li ñuy wax xaru suñu boroom subhaanahu wa taala wax na ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen rey seen bopp waaye tere na doomu aadama it muy sóobu ci loo xam ne loola bakkanam mën na caa des loo xam ne mën na caa alko wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kon doomu aadama bakkanu boppam sax amul sañ-sañ ci faat ko waxuma laak bakkanu keneen suñu boroom subhanahu wa tere araamal nit di faat bakkanu doomu aadama wala taqtulu nafsa allati xarama bil xaq yàlla moo araamal kon ñu rey bakkan faat bakkan ci lu teguwul ci dëgg moo tax mbugal mi nga xam ne suñu boroom subhanahu wa taala tëkkoo ko képp koo xam ne rey na mbokkam jullitam te tey ko mbugal mu diis la moo xam ne ki ko def walla iyaazu billaah ëllëg day béel ca mbugal mooma du tàqalikook moom wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha ki nga xam ne dafa rey nit jullit ca tey ko kooku day ak payam mooy sawara sa gën a metti ca dafay béel sax fa dàkk waaye da cay boole merum suñu borom subhaanahu wa taala rëbbam ak mbugal mu metti mu dul dàkk wa xadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu azima dem na ba àgg ci ngir rëy gu bakkanu doomaadama rëy diis gum diis ak orma am àgg na ci melal képp koo xam ne faat nga bakkan mel nga ne ku faat àdduna bépp ku faat bakkan yépp te ku ne xam ne loola moom diis na lool moo tax suñu borom subhaanahu wa tax waxoon ne min ajli dalika katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamia wa man axyaaha fa kon loola li tegtale mooy orma ju bakkanub doom aadama am ak diis goo xam ne diis na ko faat ko doon loo xam ne lu rëy la loo xam ne mbugal mu metti la ci suñu borom subhanahu wa taala di tëkkoo dafa bokk sax ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne yu diis la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy lim bàkkaar yu mag yi ba mu jiitalee bokkaale rey bakkan la ca teg akbarul kabairi al ishraaku billahi wa qatlu nafsi lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax te it yonte bi waxoon na ne bàkkaar yépp des na leen jeggale ba des koo xam ne dafa faatu faatuwaale ak bokkaale ak koo xam ne dafa rey ab jullit ca tey ko kullu zanbin asallahu an yaxfirahu illa man maata mushrikan aw mu aw muminun qatala muminan mutaamida kon faat ab jullit ca tey ko ku ko def loola moom mbugal dara du ko du ko fànq wala yaasu billah noonu bakkan diise it ginnaaw bakkan alal noonu la ko lislaam bëgg ñu sàmm ko ñoŋal ko ndax jëflante tey doomu aadama yi ci la ci la aju nga xam ne kenn wërta jël alali jàmbur ci lu dul tey bakkanam ci lu dul dëgg ci lu dul yoon moo xam da koo jël ci doole moo xam da koo jël ci ay nax nu mu ko mën a jëlee ci dëppawut ak yoon loolu suñu borom subhanahu wa taala da koo araamal da koo tere wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili kon bu leen lekk alal kenn bu kenn lekk alali moroomam ci ay neen ci ay nax wala ci ay doole wala ci lu dul ci lu dul dëgg wax ne yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm yàlla bu leen lekk seeni alal bu leen kenn ci yéen di lekk alali moroom ja ci neen yaa ayuha alladina amanu laa taakulu amwalakum baynakum bil baatili moo tax jël alali jàmbur ci lu du teyug bakkanam ci lu mel ni sàcc suñu boroom teg ca mbugal mu diis ne képp ku ko def al loxo ba def loola sax la mu yeyoo mooy ñu dag ñu dog ko loola kon la muy tegtale rek mooy lu diis la loo xam ne ab jullit bu ne gëm na yàlla waru koo jege waru koo def wasaariqu wasaariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalam min allahi wallahu jàmbur suñu boroom da ko ñoŋal da ko def muy orma joo xam ne kenn waru koo jalgati kenn warta jéem a lekk alal ak lum néew néew seen tegawul ci dëgg ndax kat yowmal qiyaam alal amu fa ju nit di faye te loo jël bu fekkee ne boroom jëggalu la ko ëllëg danga ko ko fay te foofa dërëm ay dërëm amu fa ay dinaar amu fa loolu ñu bi alayhi salaatu moo ko waxoon ne koo xam ne tooñ na jàmbur jël alalam na fexe ba loola mu yewiku ca loola bu ko deful ëllëg yowmal qiyaam du am dinaar bu mu faye du am dërëm bu mu bu boobaa rek la nga xam ne mooy ay yiwam moom la ñuy jël jox ko kamu tooñ bu demee ba moom amatut yiw ñu xool kam tooñoon lam yor ci ay ñaawteef ci ay bàkkaar yu ko waroon a tax ñu bugal ko yooyu ñu jël ko yokkal ko ko moom ginnaaw bu ay yiwam jeexee wala yaasu billah kon loolu war naa tax jullit bu nekk di sàmm bu baax a baax fexe ba bañ a jëfandikoo alali jàmbur ci ak tooñ yonent bi moo waxoon ne man kaana indahu mazlamatun li axihi falyataxallal minha fa innahu laysa samma dinaarun wala dirham min qabli an yuqaza li axihi min xasanaatihi fa in lam yakun lahu xasanaatun uxiza min sayiaati axihi fa turixat alayhi kon loolu war naa tax kon jullit bu nekk bàyyi xel alali jàmbur xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala da ko da ko da ko araamal moo tax ñaar yooyu nga xam ne mooy faat bakkan ak jël alali jaambur ci doole loolu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci Munawwir Sudur ba muy lim bàkkaar yi bàkkaar yu mag yi nga xam ne bàkkaar bu bu nekk mu wax cër ya koy def ba mu ba muy lim ba agsi ci ñaari loxo dane ñaari loxo bokk na ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne ñi ngi koy def mooy faat bakkan ak sàcc alali jaambur wa bil yadayni al qatlu mithla sariqa xussa shkur alladi kafaaka al fasaqa kon loolu mbir la yoo xam ne war nañ koy fàttali waxtu wu nekk ndax jullit bu nekk bu xelam naree dem ci mu jalgati mu fàttaliku ne moom jullit la fàttaliku ne ëllëg dina taxaw ci kanam boroomam fàttaliku ne ëllëg googu de lu am la lu dul jaas ci lépp lu mu tooñ bu yomal xiyaamee danañ danañ fayyu ci moom su fekkee ne am na yiw dañuy jël aw yiw ay yiwam waaye su fekkee ne amul yiw yu ñuy jëlit bu boobaa dañuy jël ñaawteef ñam tooñoon ñu wëlbatiku sippi ko ko yokk ko ci ay ñaawteefam wala yaasu billah kon loolu bu ñu seetloo nag nga xam ne lislaam ni leere ci tere gim tere jalgati ci bakkani doomu aadama yi ak tooñ ci seeni alal ba noppi waxtu wu nekk nag ñuy gis ci biir réewi jullit ñi ci biir ñi nga xam ne ay jullit lañ loola di fa bari kenn du toog ab diir ay ay bis daanaka ca déggoo ñu ne faat nañ nit ci faatin wu doy waar ngir jël alalam wala song nañ barab sàngam jël fa alal loolu kon war naa tax ñu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne mooy li ñu suñu diine jàngal bàyyi xel bu baax a baax loolu nuñ ko war a saafara loolu lan moo ko war a waral ba tax muy yokk te xam nañ ne doomaadama moom loolu ak dundam ñoo ànd waaye saa bu demee ba fés ba bari rek war nañoo taxaw bàyyi xel kenn ku nekk xool la cay sa cër nga taxawee ko ba ba mën a wàññi ko te bu ñu seetloo ba seetlu dañuy gis ne li ëpp ci liy waral lu mel noonu muy jalgati yooyu nga xam ne day mujj di tasaaroo di fés li ëpp ci li koy waral bu ñu demee ba jikko yi yàqu waaye rawatina lii di gëm yàlla suñ demee ba nga xam ne néew na ci doomu yi dañuy gis ne saa bu seen gëm yàlla wayafee rek seeni mooy yàlla gën a gën gën a bari ndax xam nañ ne gëm yàlla ak jikko yu rafet dañoo ànd nit ki lu muy gën a gëm yàlla ay jikkoom gën a rafet waaye nit ki lu ak gëm yàllaam di gën a woyof muy mën a def ay ñaawteef te loolu yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko ci benn xadis na ne nit ki waxtu wa nga xamee ne ma ngay def yenn bàkkaar muy bàkkaar yu rëy waxtu woowa day ak ngëmam yàlla nekkutu fa kon mooy ak ngëmam yàlla des na lool yonte bi wax ne laa yazni zani xiina yazni wa huwa muminun wala yashrabu alxamra xiina yashrabu wa huwa muminun wala yasriqu xiina yarfau nnaasu ilayhi fiha absaarahum xiina yantahibuha wa huwa muminun kon yooyu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim na ko mooy am ay ñaawteef mu ne waxtu wa ko nit di def rek waxtu woo nekkul ci ak ak ngëm mooy waxtu wa nga xam nit ki ma ngay njaaloo wala yaasu billah booba nekkul ci ak ngëm waxtu wa nga xam ne ma ngay jëfandikoo sàngara nga xam ne yàlla daf koo araamal waxtu woowa nekkul ci ak ngëm waxtu wa nga xamee ne ma ngay jël alali jàmbur wala muy siif alali jàmbur wala muy giir loo xam ne lu nit ñi bokk la kooku waxtu woowee mu koy def nekkul ci ak ngëm kon mooy booba ak ngëmam woyef na kon ñu gis ne mooy yàlla li koy gën a tax mu bari mooy gëm yàlla gi nga xam ne moo war a nekk ci xol gëm yàlla boo googa bu woyefee rek day feeñ ci jëfinu nit ñi day feeñ ci doxalinu nit ñi ba tax ñaawteef yi di bari kon moo tax war nañuy fàttaliku suñu borom subhanahu wa taala ndax nit ki su gëmee ne ëllëg dana dekki gëm ne dana taxaw ci kanam boroomam gëm ne lépp lu mu defoon ci kaw suuf suñu borom mi ngi ko doon gis mi ngi ko doon xam malaaka yi ñu ngi koy bind loolu bu nekkee ci xolub doomu aadama balaa def dara dana bàyyi xel ndax lii muy def lu dëppook lu yàlla digle la wala lu dëppoo dëppoowut ak lu yàlla digle bu boobaa dana bari lool lu muy moytu saa bu bakkanam war jëmale ci loo xam ne loola du dëppoowut ak ndigalul boroomam xelam dana ko war a delloosi mu xalaat ne moom kat dafa gëm yàlla te yàlla mii mu gëm lii daf ko woo tere boobaa dana moytandiku bu baax a baax a baax a baax kon ñàkk gëm yàlla wala gëm yàlla gu woyof bokk na ci liy xiirtal nit ki wala liy yombalal nit ki mu mën a toggoo yenn yenn ñaawte fi waaye it li nga xam ne mooy topp bakkan ak topp say bànneex ban ñoo xam ne moo leen jiital ba ñu fàtte li leen yàlla digal fàtte li leen yàlla tere di def rek la nga xam ne moo dëppook la leen seen bakkan digal te loola nag foo ko fekk rek mooy koo xam ne dafa dem ba bakkanam yilif ko bakkanam yilif ko ni nga xam ne ni la waroon a def yàlla kilifa di déglu ay ndigalam ak i tereem day walbatiku def bànneexi bakkanam ñuy ay kilifaam di ko digal ak tere moo tax suñu borom sax da da koy melal ne ki nga xam ne dafa jël ay ba bànneexi bakkanam def ko muy ay yàllaam afraayta man ittaxaza ilaahahu hawaahu ki nga xam ne dafa jël bànneexi bakkanam def ko muy yàllaam kooku mooy kon fàtte na ndigali yàllaam fàtte na tere yàlla waaye la muy la muy def rek mooy la ko bakkanam joo te ku ne xam ne ne bàkkan moom du du yóbbu nit ki ci loo xam ne lu koy jariñ la kon moo tax Euh, topp bakkan ak topp ay bànneex dem ba am jëfandikoo loo xam ne day yóbbu sam xel nga dem ba mu yilif la ba moom la loola lu mat a bàyyi xel la bokk na ci liy tax ay ñaawteef di tasaaroo ci ci biir ci biir ci biir euh, ci biir jullit yi te képp koo xam ne topp nga sa bakkan sa bakkan boobee daf lay réeral daf lay sànk doonte ko xàmmee nga day mel ne sa xàmmee googu du la amalati njariñ ndax sa bakkan daf lay jiital te bu la jiitalee dana la wàcculoo yoon moo tax suñu borom subhaanahu wa taala di wax ne wa man adallu mimman mimman ittabaa hawaahu bi gayri hudan min allah ki nga xam ne wàcc na njubug suñu boroom gi subhaanahu wa taala topp bakkanam kooku amul ku ko gën a réer ci kaw suuf kon nag ñaar yooyu bokk na ci yi nga xam ne mën nañ ne yi tax ay ñaawteef di tasaaroo kon moo tax ngir saafara ñaawteef yooyu faw rek ñu delluwaat ci njàngaleem lislaam faw kenn ku nekk la la war nga def ko moo xam waajur yi la moo xam jàngukaay yi la moo xam ñi nga xam ne ñoo yor li nga xam ne mooy baat kenn ku nekk xool lay sa taxawaay ngir mbir yu mel nii mën a wàññiku ngir mbir yu mel nii lu ci bari mën a saafarawu la ca jiitu mooy yar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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول sunu محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر gàllankoor li nga xam ne mooy dalu nit ñi ak seen kaaraange kon kenn ku nekk fa nga féete la nga ca man war nga ko caa taxawee loolu nag buñ bëggee wàññi mu wàññiku wala ñu saafara ko wala ñu fegu ko la ca jiitu rek mooy yar nit ñi ne yar nit ñi nag mooy ndaw ñi toll ci ñu yar leen ñu yar leen jiital ci nag yarub diine jàngal leen li ñu war a jàng waaye yar leen ci def ci ñoom ay pas-pas yu wér def ñoom jikk yu rafet ndax nit ki buñ ko yaree gëm mu gëm yàlla xam li ko yàlla digal xam li ko yàlla tere ragal mbugalum yàlla ëllëg lu baree bari dana ko sàmm dina ko teet du ko ko def kon ñu góorgóorlu ci képp koo xam ne toll nga ci yar ña la war a yar taxaw ci yar la yar bañ la war a yar waaye waajal la ba ëllëg sa xel du nekk ci sax jàdd yoon bay nekk gàllankoor ci dalug doomaadama yi kon yar jàngal nit ki yar ko kon fépp foo xam ne ay ndaw a nga fa ndaw yooyu war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ña ca toll ci jàng ku ca jàngut war nañoo lijjanti lu la tey jàng ñu ci toll ci liggéey ku ci liggéeyut war nañu war nañoo lijjanti lu la tey liggéey ndax ñàkk jàng ñàkk liggéey boo ca boolee nag jiital sa bakkan lu bëgg bëgg lépp loo xam ne nit kay liggéey dina ko am nga am ko loola boo amul bu la yàlla dimbalewul rek man ngaa jàdd yoon man ngaa toggoo loo xam ne lu yàlla tere la kon moo tax yar nit ñi ci gëm yàlla yar leen ci doylu yar leen ci jukko yu rafet waaye yar leen ci liggéey tàggat leen ci liggéey loolu su ñu ko defee rek fu ñu ko def rek loolu jàmm dana fa am moo tax yoon wi nga xam ne moom la ñu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu xàllal muy jàngal nit ñi ba noppi tàggat leen defar seeni jikko ba noppi tàggat leen namm seeni xol tàggat ko ci liggéey loola moo mën a defar lépp loo xam ne luy lu lu lu lu yàqu la delluwaat ca jàngale moomee di yar nit ñi ñu toll ci yar ñu yar leen ñu toll ci jàngal ñu jàngal leen ñu toll ci war a jàng liggéey ñu jàngal leen liggéey loole mooy li nga xam ne moo mën a fekk lépp loo xam ne ak yàqute la lu war a mën a jóge ci biti di ñëw ci suñu biir waaye loole it wàllu yar la ak waajal ngir fegu waaye liy amit fokk li nga xam ne mooy tax nit ñi am kóolute ña ca war a taxaw taxaw ca ca def ca lañ man kenn ku nekk yit nga yëg ne yit mbir mi sa yëg sa sa mbir la la nga ca mën a jàppee nga jàppee ko ca mën naa tax mu wàññiku waaye ñu boole ci di dellu ci suñu borom subhanahu wa ci ñaan di ñaan mu feg fegal ñu lépp loo xam ne ay musiba la lépp loo xam ne ay ay aw ay la suñu borom fegal nu ko ñaan suñu borom subhanahu wa li nga xam ne sëriñ bi nga xam ne bi muy sanc dëkk bi ñaan na ko ci muslaay yàlla ñu suñu borom dugal ca kaaraange googe ak ba ñu ba yàlla musal ñu yàlla dugal ñu ci ñaanam gi muy ñaan naan wajaal xarimana xariman amina wa kun bi xifzihi kafilan damina ñu ñaan yàlla mu dugal ñu ci ñaanam gim naan faxmi ximaaya liyakun xas xisnan xasin an kulli zinaabin wa yàlla mu tàbbal ñu ci ñaanam gi nga xam ne moom lay wax ne waj'alhu rabbi arda rizqin wa ñaan yàlla mu tàbbal ñu ci ñaan gi muy wax ne wa maskani sallim min alfujjaari wamnun ala al ahli bi maa in jaari kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu def jàmm ci dëkkam bu te sedd sell bi def jàmm ci réew mi def jàmm ci àddina bi def ci kaaraange ba lépp loo xam ne lu war a ñoŋ la suñu borom subhanahu wa taala ñoŋal ko yàggal fii Cheikh mun Mountakha ba li mu yéene eh, suñu borom mottal mot ko ndax it moom dellu na ci li nga xam ne moo mën a defar lépp mooy yar nit ñi ak jàngal leen ak tàggat leen ci mën a ñu mën a liggéey loola mooy yitteem ci la woote ñu ñu wuy si ko ci kon yàlla suñu borom subhanahu wa taala baaxe ba ñu ànd ak moom ba mu sotti ba njariñ li tasaaroo ci réew mi yëpp tasaaroo ci àdduna bi yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh

واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على السلام هيا على السلام الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ومراده المتصرف كيف شاء في خلقه وعباده وخلق منهم من شاء وهداه إلى سلك سبيل رشاده فأعرض عن الدنيا وزخرفها لعلمه بنفاده وأقبل على آخرته وأكثر من الزاد ليوم معاده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه الذي بنوره اشرق الكون في اغواره وانجاده اما بعد فيا ايها الناس خذوا القناعه من دنياكم وارضوا منها بالقليل ولا تشتغلوا بعمارتها والتنافس فيها فإنكم منها على رحيل فانتهوا رحمكم الله من سنة غفلتكم واستيقظوا من عظيم نومتكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واجتهدوا فيما يدخلكم الجنة وينجيكم من النار وذلكم باجتناب المعاصي ولزومكم التقوى وكثرة الأذكار قال تعالى wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna aljannata hiya almawa الحمد لله الذي ألبس أتقياء عباده من عذابه أمنا وجعل عاقبة من أعرض عن عبادته هما وحزنا نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الذي أسعد الإسلام برسوله وأقر للمسلمين عينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين نالوا بقربه سؤددا دائما وغنى وأصحابه الذين كانوا على نصرة الدين عونا أما بعد فيا أيها الناس inna allaha lam yaxluqna abathan wa lam yatrukna hamala bal qaala wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduun fanhaduu lima xuliqtum lahu wa axsinuu amala wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila allah summa tuwaffiya kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wala yushghilannakum at-takasuru fil amwali wal awladi wa qassiru amala fa inna yawma al-qiyamati yawmun la yanfa'u fihi malun wala banun inna allaha qad hadda lana hududa wa ja'ala alayna hafazatan wa shuhuda وبادروا بالتوبة النصوح من كل ذنب صغير أو كبير فامتثلوا قول مولانا اللطيف الخبير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اللهم عاملنا بفضلك بما أنت أهله يا أرحم الراحمين ولا تواخذنا بما نحن أهله واغفر لنا ولعامة المسلمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب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 allahu akbar sami allahu liman hamid rabbana lakal hamd allahu akbar akbar Allahu akbar asalaamaaleykum.